بالإله billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam te di jiital ci nuyoo bu Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sa borom dolli ko te kattanal mboolem yéen yoo xam ni gaa yi fi njëkk jaar amoon nañ ko ci motta liggéey Serigne Touba bi yàlla dogal lépp seete ci ay naka noonu lañ koy ñaanale mboolem kilifa diine yëpp mbokk yi nag boo leen gisee ci bërëb bi ñu nekk ñu xam ni am na lu rey ci liñ ne loolu mooy lan muy bisu fàttaliku ak a ñaanal jàmbaari lislaam muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ni umma islam bépp la fi nekkaloon waaye mu ràññeekoon ci ak dundam mu nekkal fi jullit yëpp bëggee jullit yëpp nekk ci jàmm waaye ñu àndandoo nekk benn di xàccandoo di dorandoo yitteem yëpp nekkoon nit ñi jàpp ci buumu yàlla gi te duñ tàqali ko ñu koy fàttaliku fii nag depuis ba mu fi jógee ba tey muy 1978 ba fii ñuy wax ak mu def. ñeent fukket ak benn yoo xam ni Serigne Cheikh bàyyi nañu fi jóge fi boobu ba léegi mu nekk ci kosu ci mi édition ñu ko ciy fàttaliku nag mook doomam yu baax yëpp dale ko ci Serigne Mbacke Mouhamed mi ko njëkk a wuti ginnaawam ak Cheikh Abdoul Fattah ak mbooleem njabootuk Serigne Cheikh gi jiitu gi jëpp ñun nag ñu ngi fii ci Taïf nekk ci biir événement bi pour fexe ba mbooleem image boo xam ni wala luñ fiy def la muy ziar wala loo xam ni kilifa yi fi ñëw ñu fexe ba jëlal leen ko defal leen ko nu mu cayib ba man ngeen ci jot loolu rek lañ bëgg a dundee ak yéen ànd ko ak yéen ci événement bi ba mu jeex tàkk waaye ñu gis ni fédération bi ñu bokk muy fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ñu gën koo xam ci wilaya mu amit taxawaay bu am solo boo xam ni moo ko ci def ba ñun ñii di taxaw di wax ak yéen ñu nekk seen i ndaw ñoo xam ne ñoo leen nekkal ci événement bi ñu gis ni it màggal gi ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kattan ngir di jéem di fàttaliku Serigne Cheikh moom mi nga xam ni. mën nañu koo di ci suñu dund ndax bu ñu nekkee tey lii ñu doon moom moo tax kon Serigne Cheikh daal ñu ngi ñaan sama borom dolli ko taw tawféexam dolli ngërëmam waaye gën ñoo taas ci bàyyi barkeem tamit ñun ñi nga xam ne ñoo fi desandi di ñaan sa saa borom ñaan yi fi ñaan yëpp ci màggal gi mu jotali leen ci waaye làq ko fu yàq yëgut jërë ngeen jëf. rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi. ñu ngi leen nuyu di leen siyaare bu baax fii ci barabu Serigne Mouhamed Mbacké tay bis bis bi di fukki fan ak benn ci weeru mars ñu koy fàttaliku Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké jàmbaar ji ak sëriñ Mbacké Mouhamed ak Cheikh Abdoul Fatah ñu teew fii fas yéene cee barkeelu ànd ak bokki taalibe yi ci liggéey bi ci jëmm yu tedd yooyu ay témoignages yu néew rek yuñ ci sànni jërë ngeen jëf mbokk talibé yi jëm yi ñuy fàttaliku tay la bëgg bu baax ñu am ci ak jangat digënté sëriñ Cheikh Amadou Mbacké ak sëriñ Mouhamed sëriñ Cheikh Amadou Mbacké day jëm jo xam ne sëriñ Touba ci bopam moko fagul bopam man mi wax ak yeen sëñ Mbacké Diouf moy sama mam sëriñ Touba dafa mas tok ci jotaay sëriñ Touba sëriñ Cheikh yor bant di fo ñu ngi ciy jégalu nag ci kàddu googu waaye mbirum ndaw bi mu ko rombee sëriñ bu mag bi daal di wax ne jëmm jii de Mbàkke de yàlla yéeme maa ngi nii toog ne de di dem sëriñ Cheikh itam moom la sëriñ Touba njëkk a teg ci mbaggum day jorom nii daal di wax ne sut na ñëpp loolu yi nag ci la ñuy xam ne jëmm jooju itam ji sëñ Mbacke Diouf sëriñ tubaa dafa wax ne dafa wax masa wax ne sëriñ Touba dako woo ci njëriñ ne ko Mbacke dama laa bëgg a dama fi dellusiwaat dama laa bëgg a yett boo xam ne bu dikkee bu ma dellusiwee da nga xam ne mën ne ko Mbacke bu ma fi dellusee ku ku guddub tànk laay doon Mbacke bu ma fi dellusee ku bari xam laay doon Mbacke bu ma fi dellusee ku néew ay wax laay doon loolu itam am na leneen lu ko jiitu yett yooyu xam nga ne sëriñ Cheikh tukki bu gudd ba mu dugg mooy gudd tànk gi noppi ba mu wàccee liggéey léegi kenn kenn néewuñ ne ni ni noppee la sëriñ Cheikh noppee waaw xam-xam itam mbooleem ku mën a doon ak langage bu mën doon ci àdduna kenn mënta ent mësta entre majeeru sëriñ Cheikh kon loolu muy jëmm joo xam ne nag ku am fit la ku am ful la ku am fayda loolu itam ñun ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar ñu war cee bàyyi xel doxe dëgg gu wér kenn fépp foo mën a taxaw bu àdduna buñ ne kii Serigne Cheikh ko yar mbaa Serigne Mohamed a ko yar ñu bàyyi la xel bu baax ku la xool gis ci loolu boo waxee ñu xam ne ñu xam ko. ci gàttal rek comme que minute di gudd ñu laal tur ci Serigne Mohamed Mbacke man sama waajur ma nga ko jox ci juróom-benni at daara tarbiya Serigne Mohamed jëmm la woon joo xam ne baatinam mbooleem lim dajel jamono de kenn ko egg ci dee bi amut. te kooku li ci doy seere sëñ Sall mu sëñ mu Moussa moom sëñ Sall ambassadeur am na jëwriñ ju nekk ci kër sëñ ba jaareem toog na moom ne ko diw mu ne ko Mbàkke mu ne ko li sa li sëñ Touba jaboote ka ca mag di xalifab sëñ Touba ba ci ka ci gën nekk nga daw ku ci àgg ci sëñ Mbàkke Soxna Lo ci dee yi amut te loolu lu wér kër wér kéng la moom itam sëñ Mbacke woo na ko ba mu ñëw kilifa toog ba mu jógee mu toog moom mu ne ko diw mu ne ko Mbacke mu ne ko siège bi ma toog ku fi toog diggante asamaan suuf def ak dindi suñu borom sa loxo la ko teg loolu Serigne Mohamed daa ko seere di daaray tërbiye ma nekkoon tam 2002 2001 2003 woo na général ya fa nekk laaj leen turi gone yeeg seen turi leeg seen turi baay yëpp ñaari at ñaareelu at ba genn jëwriñu Darou Salaam mu woo ko mu ñëw muy liir kayit yi ba ci àgg egg ci benn tur daal di woo jëwriñ ji ne ko kii mu fay def ci lu mat daanaka junni donga mu ne ko kii mu fay def bañ ko xoolee ab sëriñ ko moom ci yoonu murit comme que luy dugg ci média la du ci tudd turam waaye kilifa gu mag moom moom donga boobu kaane woon ko fa ci ay problème yi ñu amoon sëñ Mouhamed ne ko bu ngeen demee fexe leen seen i borom jot te daara yi 87 la fa mujj ba ni wàcceeb liggéey jaaratu fa jëmm ju mel noonu nga xam ne foo nekk adduna ak alaxira adduna ak alaxira ci waay nekk ñi ngi lay ni muy jan ni ngay janloo bâtiment bi ni lay janloog moom kooku ko suñ borom deg teg ci kanamam war ngaa xam lim la jox lan la te dénkaane bu mujj Touba màggal Daaru Xudóos bokk na ci li waxoon ci jataay bu waa jareem lam leen wax mooy képp koo xam ne na na fépp fu ngeen di seenu tànk ci àdduna di bala ngeen koo teg na ngeen xam fi ñu koy teg ndax fu ngeen teg fu ngeen teg seenu tànk adduna fa leen teg seenu tànk te loolu kon day dellu ci dénkaane sëñ Touba ak diggante ak sëñ Mourou Moustapha daf ne ko woon Mourou Moustapha li des ci jamono dama laa bëgg jaay li des ci yoon wi daane ko yóbbul ma raay bi Touba yëkkatil ma jumaa ji ba am sutut doom ju ma jur muy góor soxnaa mu njëkk nga joxe can ga euh, bis bii nga xam borom nga saxalal ma ko Touba muy màggal Daaru Xudoos ñeent yooyu ko defee li des jamono ma jaale ma jaale des yoon yi loo ci waaye amat daa ñëw ci yow mbaa mu ku mu ñëw ci ñëw daane ko Mourou Moussa dénk naa la yet sama ginnaaw bëri daan wuti am layoo yey ñett yooyu amut biir kër sëñ Mourou Moussa moom loolu du fi lamb moom loolu kenn ku ne xam ne du fi lamb sëriñ Cheikh tubaarkàlla tubaarkàlla yàlla na sëriñ Touba dimbali bu baax yàlla na nu yàggal Cheikh Moustapha Mouhamed ci seen kanam ci sunu kanam te yàgg ci gannaawam te te mu wóor ne la la Serigne Touba yore woon Serigne Modou Moustapha teg ko ci loxol Serigne Modou Moustapha mu teg ko ci loxol Serigne Cheikh mu teg ko ci loxol Serigne Mouhamed Mbacke mi ngi ci loxol Cheikh Moustapha tey jii loolu nañ ko xam xam sahir xam ki ñu am xam li ñu am adduna baax a bari waaye ngëneel bariwul te sëñ Moustapha ngëneel la ko sëñ Touba jox kon yàlla na serigne touba defal tawfiq alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh billahi min asheytan rajim bismillahir rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil ashraf wal walmursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi as sawi ridwani wa tamkin alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi ñaan Cheikh mohammed mustafa jëmale sëriñ bakki mohammed sun borom jagal ko fi te wéral ko di nuyu bokki taalibe yi ñuy déglu ñëpp ak mbokki jullit ñep fu mëna ne eh, tay ñu nek fi ci Taïf ci barab bu tedd gi sëriñ bakki mohammed ngir di fatali ko sunu jambar ya sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak taw mu tedd ba sëriñ mohammed Mbacke ak Cheikh Abdou Fatah di ñaan yàlla suñu borom yok seen ay leer ta taaf nu seen barke di jëmm yoo xam ne nag ku ma ci ñoom rek yeeyoon a fàttaliku ak mu fàttaliku bu mën a toll bu dee ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mooy seen way jur ndax na ma wàccoon ab liggéey ci bis bii di le 11 mars 1978 eh, buñ ko def fàttaliku ci gàttal mu jëmm joo xam ne bi mu dikkee ci kaw suuf bi ñu ko gisee ba nañ ko noppee gis ci boroomam rek la nekk ci luy xet li bindeef yi àdduna ak alaaxira sëriñ Seex mission woon mission ci kaw ci kaw suuf mooy xet li doomu aadama yi lépp lu mu mas a def walla mu wax ko am njàngale la moo xam ne mën naa jariñ wa àdduna bépp rawatina aw askanam rawatina ay taalibeem muy jëmm joo xam ne njariñam bàyyiwutoon fenn ba fii may wax ak yow képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah ak foo mën a ne njariñu sëriñ Seex maa ngi lay fekk fa nga nekk rawatina suñu réew mii di Sénégal rawatina suñu yoon wii di yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di yoonu maamam mu liggéey ci liggéey boo xam ne fu waaye mën a nekk yaa ngi ci jariñ ba fi muy wax ak yow bokk na ci taxawaay yi mu taxawu yoon wi muy daayira mii tey nga xam ne fu yoon wi àggal rek yoon yoon wi àgg rek moo fa àggale waaye jëwriñam jël sëriñ Mbacke Mouhamed sunu yaakaar tey ak ëllëg di sunu lépp nga xam ne moom itam jëriñ doomu aadama yi rek moo doon mission ci kaw suuf euh, lépp lu mu def ci kaw suuf dimbali doomu aadama la boo xoolee ci njëlbeenam ba ci mujjam lépp boo ko doon jàngal mënatoo génn fenn léppam da koo delloo ci bindee fi jeex takk ci boromam di borom jikko ju rafet joo xam ne mën naa jëflante ku ne ci kaw suuf te it noonu la daan doxee muy jëmm joo xam ne daan jëflante ñëpp di jik borom jikko yoo xam ne jikko yi ñu gën a tànn muy jikko yi awliya yu ak jikko yonent yi da cee feesoon dell ne kon murid saalix boo xam ne dama jëlee la moom waaye ñi ko toppoon rek doy nañ doy nañ jamono ñuy ñaan yàlla na suñu borom fayal nu leen dëkkal liñ ci àjjana yi gën a kawe te saxal nu ci seen bëgg képp ku leen di bàyyi xel de danga teg sa tànk ci siraat mustaqim ndax moo nekkoon seen bëgg moo nekkoon seen jublu moo nekkoon li ñu daan dox itam sëñ Mouhamed jëmm la joo xam ne képp ku koo xam rek dama jëlee la moom waaye yow ci sa bopp sax sa mbir moom doodoo ko jëm ci lu jëriñ doomu aadama ndax dara gënu ko a ñor jëriñ doomu aadama yi naa bu ñu dee fàttaliku bu baax ndaje mi mujj am mbooloo mi fii ci ëttam bi dafa waxoon mbooloo mi na ngeen takku te taxaw ba képp ku soxlaa ci ndimbal mën naa bañ ak seeti sax ci man bu yemee ci rek na aajoom aajoom faj kon képp ku yaakaar ak foo mën a nekk war ngaa war ngaa nekk bon exemple ci mbooleem ña ngay jëflanteel ak mbooleem ña ngay amlanteel ci sa mbir àdduna muy jëmm joo xam ne ak bëggum Serigne Touba ëpp jàllu na dayo koo ko xamoon rek xam fi mu teg Serigne Touba xam ne nii mu mel noonu rek la war a mën a mel xam naan tey fi nga ñu fekk la euh, kàddu yi du mën a gudd waaye jëmm jëmm lañ yoo xam ne daal li ñuy ñaan suñu borom mooy mu saxal seen bëgg te yàggal fi seen taaw bu tedd bii di sëriñ Soob ak Mouhamed suñu borom saxal bëgg si bëggam saaxiran baatin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.